Ousmane Sonko ci dëkkam la nekk ah man de tey laa mës a gis ñu reproché nit fa mu juddoo ñu far ko fa mu nekk fa waajuram nekk fa ñu ne ko waroo fa def tey rek laa te loolu nag dafay wane ne lay amatul lay amatul te loolu rek moo ñu bett ci procès bi taxawee billaay yuux dina jëme fuñ ko formé ce te loolu moo wér ñuy indi nit ñëpp ndax ñoom Ousmane Sonko wax naa leen ko dégg en trois mois wuyu ji cette fois yëpp dinañ ko brutaliser. du ko waral boobu violence